waaw sànq dañ ma wax laaj ministre bi ci lu jëm ci tourisme religieux parce que nag bu ñuy wax tourisme yaakaar naa ne tourisme plage yi rek amu fi am na tourisme yoo xam ne dañuy dem ci parc yi di xool ak yooyu waaye tourisme religieux bi aussi war nañ cee lak l'accent te boo jëlee ay villes yu mel ne Kaolack yu mel ne Tivaouane Touba Porokhane am nañ fa benn patrimoine culturel un patrimoine religieux boo xam ne war nañ ko mun a wone ñi nga xam ne ñooy jóge bitim réew di ñëw looloo tax nag ma ne ministre bi nañu accompagner tourisme boobu te pour ñu accompagner ko il faut ñu tabax ay sites yoo xam ne dinañ mun a accueillir nit ñi nga xam ne dañuy ñëw pour xool si loolu nga xam ne moom la ñu am au plan religieux te sites yooyu mënta nuroog hôtel yi ñuy tabax parce que site boo xam ne da nga ne ay religieux ay ñu ñëw pour xool lu jëm ci religion la donc site yooyu il faut mu nekk des sites assez particuliers day mel ni rek li nga xam ne tabax nañ ko Kaolack ñu tuddee ko këru gan tabax ko aussi Tivaouane te à Touba aussi am na ay bërëb yu mel noonu yu mën a accueillir ay gan ñu ne donc ministre bi ne waxtaan ak privé yi pour ñu mën a tabax ay bërëb yu bari yu mel noonu ba gan yi suñu ñëwee mën a am fu ñu nekk ci jàmm ak salaam. liggéeyu aéroport Kaolack bi moom mu ngi avancé.